asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki groupe wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribaati wa min ribaati alxayl aywa gannaaw maa ngi leen di nuyu di leen ziare te di leen soññi tamit ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu seqoon ñu góorgóorlu rek mbir yi am na solo te mi ngi ci waaj egg nag pour ñu gis nataay yi incha allahu taala te nataay ji moom moom yi ñu doon séentu la am incha allahu rabbi tey ci nag ci boori huit ci suba tey ci altine le vingt trois novembre deux mille dix huit damaa yeewu ci suba yem ci euh, nga soos nga soos ñuy wax Mamadou Lamine Diop <clears throat> wahabi yi boobu nekk ci bitim réew te mu xaw a niroo ak euh, fasu mbéy wala mbaam xoox yu xaw yee xonq tuuti mu am ñàkk chance gu toll ne nee na woo day corriger Serigne Cheikh jaan gay ci ay waxtaan yu daan def ma wax ci sama xel kon de kii de dana sonn ndaxte moom sëñ Cheikh li nga xam ne yàlla dogal na mu jot ko waxtaan ak ñun maa bàyyi ko fi ci ay waxtaan hmm, xaw naa takkule de wu ci arrangé wahab yi nag amu ci ma seetlu tamit jamono jiñ toll nga xamante ni bii ñi ngi tollu ci almadarisu taftaxu abwaabaha walwahabiyatu moom taftaxu duburaha mu tuur fi moom Mamadou Lamine Diop sobe yu baree bari ay fen yu rëy yu yaatu waxtaan wu gudd ëpp na une heure te defe naa ñeenti point daal la wax ni moom lay jël waaye moom dafa mel ne dafa soxla pour dégtal nit ñi ay kàddoom yuy fen toppatoo ci fen la wala dëgg la l'essentiel daal moom lim jàpp ni moom la war a am mooy na nit ñëpp mobiliser wu toog di ko déglu moom muy muy muy wax foo fen jekk rek mu teg ko euh, man nag dama koy topp ci ñetti ci juróom-ñaari point te gàttal ko bala muy toll na li mu wax maanaam moom sëriñ Cheikh Cheikh Tidiane Gaye rahmatullah alayhi te bala may sori danaa ko wax moom sëriñ Cheikh maa ngi koy wax te na ma dégg ni ko bul am lu la naqari sa gannaaw golo gu dem ci bàmmeelub gaynde di di fa cëpp cëppi loolu doonul ni gaynde dadul ka mu doonoon golo ñëw ci fu ñu suul gaynde gaynde faatu na suul nañ ko gaynde ñëw fañ ko suul di cëpp cëpp ci kaw bàmmeel bi wërta naqari wërta naqari gaynde puisque golo cëpp cëppiwul ci kawam golo cëpp cëppiwul ci kawam arab booy na ko laa tasifanna ala gadri zamani fa taalama raqasat ala jusasil usudi kilaabu ay xaj wala ay golo yu cëpp cëppi ci fu gaynde faatu xam nañ la leen ko may waaye nag nañ nekk ba xam dinañ ci muccam déet chef Diagne Gaye ñu ngi lay yéene nga tëdd sa rawda boobu yàlla ubbil la fenêtre ca àjjana firdawsi xet gu neex ga xéewal di la fekk si nga fay xaar tuuti luy tolloog àdduna tukki ba yàlla dajale jaam yi àtte leen sab àtte daanu te mooy yóbbul leen ma ko àjjana wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran lañ lay ñaanal te gëm nañ ni yàlla dina ko nangu saay saay sii nag yi ñuy def bu mu la yëngal tëddal tabale bañoo ñoom euh, su ko defee Lamine li mu bëgg a wax mooy dafa mel ni day bañ nit ki tànn ci xeeti ñaan yi mu bëgg a ñaanal ki faatu mu tànn ci ba ko neex ñaan yu bari yi nga xamante ni bii da ko fee fekk muy ay ñaan ak ñaan yu bari yi nga xam ne da nga koo soxla soxlaa la dab mukkuloo ci benn xadis yooyu yëpp a fa yàlla yëpp lañ koy ñaan ñaan gi nga xam ni xadis da cee mbir mii laa soxla xadis baa ngi nii nii lañ ko yonent bi ñaane loola kenn du xam xadis ba di ko fa bàyyi di ñaan leneen ndaxte la yonent bi wax day gën a sakkan gën a gaaw gën a baax am maa soxla si nga xam ne seen bi dalaa dab te nag amu ci amul genn ñaan gu ci yonent bi ma sa ñaan nga seet ni yàlla fajal ma soxla sàngam yow yàlla sama mbokk mii faatu man ku ko xam laa dëkkoon nañ am na jaanib boo xam ne bokk na mënoon nañ ko ci walla seetaane yow xam nga ko yaa ñu ko gën a xam moom mi faatut xam na ko man am na lu ma ci xam maa ngi lay ñaan loola yàlla boo ko ci topp lu mel noonu ku ci bëggoon a indi xadis foo koy fekk am comme que mokk la ci xadis doo ko ñaan te nga tànn ci ñaan yi yonent bi daan ñaan yàlla neex nañ leen xool ba xam am na ci diine ji wala amu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax mu ni boo dee julli ba agsi ci taaya su ngeen toogee ci diggante ñaari rakka moo xam ñaari rakkaay digg la wala julli gi daa jeex da di jàng taaya mu sañu baatu taaya yi ñuy taayaa nii ba ci wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yonent ba teg ca summa li yataxayyar min adduaai ajabahu ilayhi fa yaduu bihi su ñaane bu defee jàng jàng taayaam ba jeexal na tànn ci xeeti ñaan yi ga ko ca gënal mu ñaan ci na summa li yax summa li yataxayyar bu ko defee bu defee taayaam ba mu yegg ba ci wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu li yataxayyar na tànn fi'lu amr la min adduaa i ci ñaan yi ñaan yi nga xam ne mokkal na ko ci yonent bi wala soxla na ko digganteem ak boroomam na ca tànn ajabahu ga ko ca gënal ajabahu ilayhi fa yad'u bihi mu ñaan ci loolu mu ngi ci tabaraani waaw léegi bu lii amee léegi xam nga xam nga xam nga xam nga jóob li ko yàlla may ci làmmiñ wu gudd su ko ci mayoon su ko mayoon genn wàll gi ci xel rek dana noppal que toujours nu nusuusu sharia lay mbëkk te jàpp ni nag keneen lay mbëkk day jàpp ni keneen lay lay lay lay lay daaj ji te fekk na suusu sharia yaakaar naa ni yëgul woon ni lii yonent bi ko wax yonent bi bi mu ko waxee euh, ku ci demee ni ki euh, ibnu rajab ci fi mu doon saraa saxiixul buxaari tudde ko fatxul baari muy même tur wi ibnu xajar tànn dafa wax mu ni summa li yataxayar min adduaa ajabahu ilayhi fa yaduu aywa nee na abu daawuda radiallahu anhu jële na ci musaddad te musaddad ci cheikh ci sëriñu buxaari bokk fa yaduu bihi mu ñaan ca te nasaa i noonu loolu la indi ak am na fal yaduu bihi am na sax summa li yataxayar min adduaa ma ahabba am na sax summa liyataxayyar min addaawati wala min asanaai ma shaa léegi bu lii amee sax kan moo mën a dox ci diggante Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Gaye ci moom mu dem jël ñaan gu ko neex mu ñaanale ko aji faatu te te te ba peut-être libéré nit ñi pour ñu dem ñaani ñaan gu leen neex te léegi waa ji nga xam ni tey dafa ñëw ci ñuy jullee néew ñëpp sàppe muy ñaan ñaan foofu muy ñaan ilimaan ji jiite li muy ñaan ñenn ñi topp ci gannaaw mën nañoo ñaan lu geneen ñaan ilimaan di ñaan ñaan gii maamum di ñaan geneen ñaan gu bokkut ak moom te ñaar ñaari ñaan yëpp dëppoo dëppoog yu bàyyi ko ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ilimaan ñaan gi muy jàng bokkut ak maamun gi ñaan gi muy jàng kenn ku ne da tànn genn gu la neex ci li fi yonent bi bàyyi woon nga xam ne daal buntub buntub tëj ñaan lu la neex lu la neex nga ñaale ko néew bi daal vraiment euh, Mamadou Lamine Diop te boo ñëwee ci ci ci ci ci Fathul Baari ba tey wala ci bu bu saxiixul bu bu Ibnu Battaal nag ba mu la indilee summa liyata xayyar aywa léegi summa liyata xayyar min adduaai ajabahu ilayhi fa yaduu boo demee ci ibnu Battal dani ixtalafa alulamaau fi hada albaabi fa qaala malikun wa shaafiiyu wa jamaa la ba'sa an yad'uwa ar-rajulu fi salatihi bima sha'a min hawaa'iji dunya li yonent bi ni nit ki su defee taayaam ba mu jeex nafs bi nga xam ne mooy taaya bu ko jeexalee balaa muy sëlmal na seet lu ko neex ci ñaan yi mu ñaan ko imam malik ak imam shafii yi ak yeneen meneen mbor ci borom xam-xam yi dañ ni wàññiwul dara nit ki seet la ko neex te ci biir julli lañ wax biir julli biir julli nag biir julli rek la mën naa doon jullee néew mën naa doon jullee kudut néew mën naa doon julli farata mën naa doon naafila mën naa doon tamit nag ci bitti julli gi wala wala daal aaya dikk na wala xadis mu ni buñ jullee ba bu ken ñaan lu dul ci biiru julli wax dëgg yàlla lii munta sax te xoolal boo ñëwee ci al muntaqa benn téere la boo xam ne day chara muwatta u malik Souleymane ibnu Xalaf ibnu Saad ibnu Ayub Albaaji moo ko bind nee na eh, wa qawluhu summa yad'u ida qada tashahudahu bima bada lahu yuridu min umuri diinihi wa duniyaahu foo nee na boo gisee mu naan la boo taayaa ba sa taaya jeex nga ñaan la la neex maanaam lam ci jublu mooy la neex moo xam sa diine la aju moo xam si àdduna la aju li feeg daal du lu ñu aaye maalam yumna adduaa maalam yamna adduaa bihi lépp loo xamante ni bii daal aaye nañ ko ca ñaan mu wax ba ca biiri waxam mu dolli te mu ni wa yad'u ala zalimi wa yad'u lil mazlum mën naa nekk ci biir julli gi mbaa ci bitti julli gi di ñaan yàlla ab tooñkat ak di ñaanal yàlla ndimbal ci kuñ tooñ lii mu am ci téere yi bu ñëwee ci addu'a lil mayit léegi néew bi ñu ko dee ñaanal ndax mën nañ ko jàngal alquran wala kër mënu ko ko jàngal léegi balay balay booba benn néew ngi ñu tiim ko di ko jullee benn waay bi mu kàbbaree dani allahumma agfir lahu warhamhu wa aafihi waafu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudxalahu waxsilhu bilmaai walsalji walbaradi wa naqqihi min alxataaya kama naqayta sawba al abyada min addan min addanas wa abdilhu daaran xayran min daarihi wa ahlan xayran min ahlihi wa zawjan xayran min zawjihi wa adxilhu aljannata wa aridhu min adabi alqabri wa min adabi annaar kii bi bi bi bi muy julli néegi kooku loolu la jàng keneen ki bi muy jàng bi bi mu duggee jàng néew bi bi moom dafa tari fatiha ba mu fatiha xelam dem ci yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis ba mu waxoon abu hurayrata nett li ñu ko mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida sallaytum ala almayiti fa lahu duaa su ngeen dee jullee ab néew ni ngeen ko ñaanal ñaan gu rafet ci kaw kooka ba mu taree fatiha ba noppi leneen la ñaan lu bokkut ak la kële ñaanoon est-ce que du loolu la tax ndax dana baax wala du baax kii dafa tari fatiha daal di seet ñaan gu neex rek mu ñaanal ko ko keneen ki moom bi mu taree fatiha ba noppi dafa wax allahumma innahu abduka wa bnu abdika wa bnu amatika kaana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta aalamu bihi minna allahuma in kaana muhsinan fa zid fi ihsanihi wa in kaana musian fa tajawaz an sayiatihi allahuma la tahrimna ajrahu wala taftinna baadahu muy xadis bu wér ibnu xibbaan nettali ko ak Malik kii jàng bii kii jàng bële keneen jàng ba ca des kenn ku ne da ngaa tànn bi la neex rek keneen moom bañ bañ kàbbaree dane allahuma anta rabbuha wa anta xalaqtaha wa anta hadaytaha lil islami wa anta qabadta ruuxaha wa anta alamu bi sirriha wa alaniyataha jinaaka shufaa faghfir lahu abu daawud ak ak sunanul kubra linnasaa'i léegi man vraiment dëgg dëgg tey suñu lan la bëgg man xaw ma ko te nag nan ni mu mbëkkanteeg aayaage ahadis yi ak waxi borom xam-xam yi boo waxee muy muy wax ay tappale naan xaw ma nangam ay tappale naan nangam ay tappale boo ñëwee ci qissatu fatimatu bintu asadin ibnu Hisham di wayjuru Seydina Ali ibnu Abi Talib soxna su baax soosu nga xam ni yonent bi dafa wax mu ni yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla bi mu faatoo yonent bi danay wax dafa wax sallallahu alayhi wa sallam sama yaay ji yal na ko yàlla yërëm bi sama yaay ji ma jur jàllee kii moo ci topp kii mooy sama yaay moo ma daan leel jox ma lekk ba suur mu sàng ma ma solu bu nelaw jotee mu wutal ma lu ma lu ma sàngoo lu ma bëgg moom ma ko daan wutal di ma ko defal nag daan ci wut kese nag payug yàlla yonent bi santaane nañ ko sang sang sang ñetti yoon ba loola pare mu wut kaafu def ko ci sumi mbubbam solal ko sànge ko ko maanaam daal di woo ay nit woo ay saxaabaam ni leen gasal leen ko ñu gasal ko ba ca biir gas ko façon gasin ba mu bëgg yonent bi daal doon dibb sax suuf di génne ba pax ma demee ba mu mel na mu ko bëgg yonent bi dugg ci tëdd dal di fay ñaan ak ñaan ñaanal ko ñaan gu neex a neex léegi nag <laughs> waa ji nee na wérul puisque Seydina Ali fekkewul <laughs> léegi benn xadis bu wérul puisque Seydina Ali ibn Abi Talib fekkewul bi ñu koy wax te mooy yaay yi ki faatu léegi ñaata nit lañ rob seeni papa ak seeni yaay te fekkewuñ ko kañ la kañ la ñàkk a fekkeeg diw ci ab xew-xew ñàkk a diw xam nga kan moo doon kan moo doon ñàkk a fekke <laughs> par xew a am mooy yonent bi la ak sàddoom doon mën a tee xibaar bee am mooy yonent bi nga xam ne moo ko def ñu nettali ko waaye Seydina Ali man ku ne daa fàddu sax <coughs> kan moo ni dafa fàddu léegi ma ñàkk gum ko ñàkk fekke lan mooy firndéem li ko yonent bi tuddul ak ah, léegi yonent bi est-ce que bu ko Ali fekkee da ko waroon a tudd azim gis nga xam nga soxor xeqdu maanaam euh, euh, Mamadou Lamine Diop dafa dafa am xeqdu gu mu yenu gu rëy jàpp na ni fenam yu rëy yi mën na cee fen ba tasaare àdduna bi ba mu jeex mais xolo xoolal li mu wax ak naan euh, ni Cheikh dafa wax ni dañ koo suul ba pare yonent bi ni leen ko ñu sulli mu dugg ci biir bàmmeel bi xool dof yi léegi saxaaba yi ak seenu teey ak seenu wéy ci ndigal nan la euh, fatimatu bintu asadin di di yaayu Seydina Ali defal yonent bi li mu ko defal ba yonent bi ni kii mooy sama yaay bu sama yaay jàllee nan la mën a faatoo ci ci kër gi ñu rob ko te yonent bi téyewu ko ba koy sulli lu ñu koy robaat am néew buñ bu ñu sul dañu ko sulliwaat xanaa suul ba baaxul te saxaaba yi ngoo ko jama-jama amuñu ko te loolu Seydina Cheikh Tidiane Gaye nettaliwu ko bu ko nettalee na na ko jóob indi jóob xam nga nu muy def day gént di di di di fen rek day fen dong jóob kenn mun a toppi tànkam maanaam moom boo toppoon ci gannaawam xam naa ne foo toll moom boo ba moytul échappement bi moom li muy dégager dana la sonal trop école yi tijji moom mu tijji duguram di tërëri rek te lii ma leen nettali nii tabaraani moo ko nettali te nettali na ko ci almujamul kabir ak almujamul awsat ok alhaytami nettali na ko haytami bi mu ko nettalee dafa wax ni am na ku nekk ci silsila bi ku ñu wax ruux ibnu Salah waaye kooku ibnu Hibbaan nee na siqa la ak xaakim bu dul kooku nag ñu ci des ñëpp ci ñu nettali xadis bi ñooy rijaalu as-saxiix abu abu abu nuaymu ñett na ko fi xilyatil aw aw aw awliya te boo demee ci euh, sarxu saxiixil buxaari bu Samsuddin as-Safiri da nga ci fekk lii ma la wax nii ma la ko wax benn bis ba tey ci sayidatuna Fatimatu bintu Asadin ibnu Hisham Euh, dafa am benn sëtë benn sëtam surtout Seydina Ali koo xamante ni bi euh, mi ngi tudd Ali ibnu ibnul Xuseyn Ali ibnu Xuseyn surtout Seydina Ali la ah Seydina Saïd ibnul Musayyab dafa wax ni wala Zubair ibnu Saïd al Qurashi dafa wax ni moom yi di sët Seydina Ali musuñoo gis ku bokk ci giir banu Hashim ku mën a jaamoo yàlla ni ki moom mu romb leen nag ba jege leen saxaaba yi jóg Zubair ibnu Saïd ma nga ca woon ak Saïd ibnu al Musayyab ñu daal di jóg daal di koy nuyu ay taabi'un lañ ay taabi'un lañ Saïd ibn Musayyab mooy sayyidu taabi'in Musayyab mi mooy baayam moom saxaabi la Zubayr ibnu Saad ab taabi'i la ñu daal di jóg dem ci Ali ibnu Husayn daal di koy nuyu dañ ko nuyu ba pare Saïd ibnu Musayyab ni ko yaa Abaa Muhammad waaye suñu suñu suñu suñu suñu soxna si ñuy wax Fatima bint Asad lañ bëggoon nga waxtaanal ñu ci mu ni leen waaw waaw sama papa Xuseynu nee na ma dégg na papaam Seydina Ali ibn Abi Talib ni ko Fatima bintu Asad bi mu faatoo yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko sànge am mbubbam jullee ko ba mu koy jullee juróom-ñaar fukki kàbbar la ko kàbbar juróom-ñaar fukk bañ ko di waaj a rob yonent bi njëkk dugg ci biir xabru bi mel ni ku koy seet mel ni ku koy yàq yàq di yàq lekk jekkal daal di génn bi mu génnee mi ngi jooy daal di buñ ko dugalee mu jël ci suuf bokk na ci ñu doon suul bañ noppee Seydina Umar ibn Xattaab wax yonent bi ni ko yow ndawal yàlla li tey de gis naa la nga doxale noo xam ni daawoo ko doxale ci néew yonent bi ne ko Omar soxna sii moo mën naa ne la mooy ndey ji ma jur mu ne ko boroom këram di di di sama baay tax da daan def ay da daan def ay teraanga ay bernde waaye ndox soxna si daf ma ca daan beral bu baax a baax a baax a baax te Jibril alayhi salaam nee na ma soxna si yàlla nee na ko mu nga bokk ci waa àjjana te jibril nee na ma li ko li ko gunge ci malaaka fekk jullee gi mat nañ juróom-ñaar fukki junni malaaka lii soo demee ci almustadrak ala saxiixayni bu abi abdullah alxaakim danga ko ca fekk téere bu ñuy wax subulul huda war rashad fii sirati xayril ibaad danga ko ca fekk aywa ñun lii lañu gëm lii lañu gëm teyit moom lañ doxal teyit maanaam wahabi jëlale naa jëlale naa ku mel ni ki kii de waaye waaye képp ku takk ci yonent bi nga bëgg mu dem àjjana wahabi yi dañuy lànk jaral na leen naan zahabi nee na xadis bi wér naag wéru tëg mat mat na bi dafa am rakaaka te rakaaka bi mooy Seydina Ali fekkewul bi ñu koy rot wala kenn tudd ci turam waaye léegi Seydina Ali fekkewu ko nañ wax ni fekkewu ko donte lee fekkewu ko ji dana aja dalil kenn tudd ci turam ndax ña fa nekk ñépp tudd nañ seen tur kañ la ab xadis di wér ci kaw ñi fi nekk ñëpp tudd nañ seen tur xoolal ma ji waxi dof ma ñëw. léegi ci diine wahabi bii rek ngay gis waa ju am itte am soxla pour wéradil benn xadis mu jaral ko lu ne ba egg ci buy buy buy buy wàññi lii tax lii lii wane ni xadis bi wérul boole sa ni Seydina Ali mi nga xam ni moom la yaayam faatu fekkewul rob bi kenn tudd ci turam ay. ay ay ay ay ajaanib ay ajaanib ñoo ko doon rob waa léegi na Seydina Ali ñëw nañ jàpp ne Seydina Ali ñëw na moom mooy doomi soxna si waaw ndax mooy nu moom mën na ko yëkkati dugal ko ci pax mi rob ko xoola gën ñaaw njort lu waa ji bëgg a def ci xew saxaaba yi ba bëgg ni ay ajaa nit ñoo ñoo rob soxna si est-ce que jigéen bu faatoo ay góor di ko rob dañ naan ab addina bi waru cee bokk wala war na cee bokk lii ku ko mës a gis gaa yi xam nga gi réew na ak gi so gi soxor ak gi bañ bëgg a fen ah vraiment wahabi yi waxuñu fañ jëm de alwahabiyatu firqatul kadibi wa tadlili wa hadmi diini wal axlaaq xoola ma waa ji ak mbir mi li mu ko jaral nga xam ni man ci njëlbeen gi damaa déglu ma ni kii dégg dëgg lu jar weddi puisque benn waay boo xam ne man bu ma dee ñaanal néew bi damay seet lu ma neex ma ñaanal ko ko nga ni nag loolu du ko fi waxe te yow boo doon ñaanal néew bi loo koy ñaanal loo jël rek am na leneen loo bàyyi loo xam ne ci yonent bi la jóge loo jël ni moom laay ñaanal lépp mënoo li yonent bi ñaanal néew lépp xamoo ko boo ko xamoon mënoo koo tadi ci benn gennug julleeg néew aywa il faut dañ kii nii moom damay jël li ma neex ma ñaanal ci sama néew nga nga nga nga weddi ko mu ni yonent bi dafa fonkoon kooku bor defee na ko façon rob boo xamante ni bii kenn mës a gis bi nu mel kenn defaatu ko aussi nga ni am nga ni amul ñun la lu tax nga ni puisque diw na wérul waaw te yow buñ la nee buñ la nee mm, ibnu taymiya nangam la wax ci lu jaaduwul da naan ñun topp ñu ibnu taymiya mais su fekkee xadis bi wérul moom da nga daal di ni zahabi nee na wala falaqi nee na wérul kese ah azim zahabi dëgg man marad bi leen dal yàlla nañ ci yàlla suturaal léegi ci wàllu suratul ixlaas qul huwa allahu ahad dafay yemoog sulusul quraan nga xam ne loolu li muy tekki mooy ni kon ñetti qul huwallahu ahad day tolloo kub kaamil xoolal li mu ci daj pour weddi ko xoolal lim ci daj pour weddi ko te bu ko weddee ba la mu fa jële woon la mën a wax mu fay indi ay al al jazaa ak al ijzaa loolu ku la ko laaj tey yow bu dee al ijzaa nga bëgg indi kii moom al jazaa ko tax di wax te jasa obi yow nangu nga ni mën naa nekk te it mënoo koo mënoo koo gàntu puisque puisque nag même boo ko gàntu woon yaay kat nag sa waay benn qul huwa allahu ahad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni abu darda moo ko nett li mi ngi ci muwatta u malik mi ngi ci muslim ayajizu ahadukum an yaqraa fi laylatin thuluth alquran qaalu wa kayfa yaqra'u thuluth alquran qaal qul huwa allahu ahad taadilu sulusal qur'an ndax daa të kenn ci yéen mu jàng kaamil buñ xaajoon ñetti xaaj mu jàng benn ba ci genn guddi ndax daa të kenn ci yéen ñu ni ko mu kenn ci nan la mën a jànge alquran buñ xaaj ñetti xaaj ci genn guddi mun leen qul huwa allahu ahad mooy tolloog loolu léegi ma jàng qul huwallahu ahad benn yoon ni alquran de buñ ko xaajoo ñett jàng naa benn xaaj bi wala li ma jàng tolloo naag moom te man tuyaaba lay wut tuyaaba dong lay wut tuyaaba ji dama koy maye dong ma dolli beneen dolliwaat beneen ni jàpp naa ni li ma jàng tolloo naag alquran lépp ndaxte ñetti qul huwallahu ahad laa def dolliwaat ci yeneen ñetti qul huwallahu ahad dolliwaat ci yeneen ñett dolliwaat yeneen ñett mi fukk qul huwallahu ahad ak ñaar ma ne jàpp naa ni li ma jàng tolloo naag daraja ab kaamil bu man sëkk may naa ko diw mu dund wala diw wala diw wala diw mu faatu waaw léegi lii nga bëgg nga bëgg ko weddi te boo ñëwee ci sahl ibnu muaad muaad ibnu anas al juhani nee na muaad euh, sahl moo wax mu ne sama papa nee na ma te papaam ab saxaabi la moo ne ko man jëlee naa ci yonent bi mu ni ku jàng qul huwallahu ahad ba mu jeex nga jàng ko fukki yoon yàlla dana la tabaxal ab pale ca àjjana Muaaz ibnu Anas al-Juhani nee na ba ba ba yonent bi waxee loolu Seydina Umar ibnu Xattaab dañu ko ah waaw kon ñun kon ñun mbaa duñ dem ba jàng lu ëpp loo xam ni yàlla dinaan ñu bari dama wàññi leen ko li ñu wax mbaa dem ba bariwaay bi dem dem dayo yow yonent bi yonent bi ni ko allahu aksaru wa atyabu te mu ngi ci musnadu ahmad ma jàng fukki qul wallahu ahad yàlla dig ma ci ab pale ci àjjana ma ni ko ne qul wallahu ahad ji may naa ko diw sàngam ci samay mbokk muy dund wala mu dee te loolu inna lil insani an yajala sawaba amalihi li gayrihi njàngum alquran laam julli la même même même même même aj gi aj gi li mu ko bëgg def ne aji farata la loolu day feneen boroom xam-xam yi rek kenn waxul maanaam aj gi ngay ajali nit ki mu ne aju farata sa aju farata mënoo ko mënoo ko ajaale keneen bi maanaa ki mën a ajal morom ji day njëkk aj aju farataam ba mu noppi ba noppi kii ajali keneen day njëkk aj aju farataam ba noppi doog a mën a ajal keneen te mën na koo umra jël tamit mën na koo wooral tamit mën na koo jullil tamit julli geeg koor gi day bañ a doon jullik farata maanaam tàkkusaan jot ma dinaa kàbbar pour jullil ko sama papa déedéet weeru ramadan jot ma dinaa wooral ko sama papa déedéet damay woor ramadan ngir jaamoo ko yàlla ndax da koo gàll sama kow jullil ko tàkkusaan ndax daf ma koo farataal fardu ayni la bu ma ca noppee te am heure bu ma bëgg a wóor beneen beneen geneenu koor ci weneenu waxtu wu dul biir ramadan wala geneenu julli goo xam ne du du du du farata ju gàll sama kaw loola laa mën a defal ka ma ko bëgg a defal te loolu jullit ñëpp ci dàqu ñëpp nag loolu moom lim leer a yaakaar naa ne jëru fee nekk di xool du duñ ci yàgg ndaxte dañoo am yeneen i itte yu ñu war a dox yi waa ji dafa mën na fen rek léegi buñ ñëwee ci tawassul wax na ci lu bari sonn na ci ndeysaan moom moom daal xam naa ne la ko dal metti na sonn na ci waaye sonni fen rek léegi mbokk yi déglu leen li may wax maanaam mukallaf yi wala jaami yàlla yi seeni jëf ñoog seeni jëf yàllaa leen boole bind jaami yàlla yi kenn ku ci ne yàllaa ko sàkk ay jëfam yàllaa ko sàkk kon yaag say jëf yàllaa leen boole sàkk soo demee ci xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci ci saxiixul Buxaari da nga fa fekk mu ni mukallaf yi seeni jëf ay mbindaafan la kom ñoom soo demee ci alquran da nga fa fekk wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla leen bind yéen ak li ngeen di def kon sa jëf ji nga bëgg a defee tawassul yàlla man de dama sarxe woon téeméeri dërëm sarax ko silmaxa ca dëkk ba te ngir yow dong nga taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan ci baaxu jëf jooju ma def te nga bëgg ko nga defal ma nàngam ni mu dagane noonu nga mën a waxee yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkib diw wala ci baaxaayu diw wala ci teraangay diw nga defal ma nàngam te loolu ba ca boroom xam-xam yow weranteet li nga xamante ni bii nguur sii fa mu féete ñooñu loolu lañ wax mooy mën naa nekk ñu ñu def sul ci ci ci ci ci ci ci keneen ci mbindaafam rawatina bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu indi na ko man dama yaakaar ne xanaa xanaa xanaa xanaa jël ibnu taymiya indi na sax ni mënees naa waat ci nit mënees naa waat ci yonent bi sallallahu alayhi wa te danaan imam ahmad moo ko wax amma bu dee tawassul nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu faatoo ibnu taymiya saxal na ko imam ahmad saxal na ko te te te tàyyi naa ko ko fi wax demal ci majmuul fatawa rek léegi léegi léegi eh, ahmad fi ihda ar-riwaayatayn qad jawwaza al-qasama bihi fa lidhalika jawwaza at-tawassula bihi ibnu taymiya ahmad nee na ahmad dañoo dafa nett li ñaari nett li dañoo jëli ci moom ñaari wax yu bokkul lu bari ci waxam mu ni benn ba la ca nekk mooy ahmad nee na nangu na nga waat nga dogu ci yonent bi bi bihi mooy nga dogu ci yonent bi nangam dana am wala nga def tawassul ci yonent bi te boo demee ci majmuul fatawa fekk ko ci ba tax na man foofu lu fi waa ji bëgg a wax xaw ma bu fekkee ci tawassul bu fekkee ci tawassul déglu leen tawassul bi abu umama sahlu bnu xunayf dafa nett li jële ci papaam bu ndaw bu ñëw usmaan bnu xunayf radiallahu anhum mu ni dafa am silmaxa su dikkoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ya rasulallahi allimni duaan ad'u bihi yaruddu llahu alayya basari déglu leen riwaaya bii li ci yonent li ngi ci mu ngi ci almustadrak bu bu xaakim darir bi te mooy silmaxa bi mu ñëwee dana yonent bi jàngal ma ak ñaan jàngal ma ak ñaan ma di ko ñaan pour yàlla may ma sama bët yi dellu si bi ni ko waxal allahumma inni asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiyir rahma ya muhammad inni qad tawajjahtu bika ila rabbi allahuma shafichu fiya wa shaficni fi nafsi fa daa bi hada duaai fa qaama wa qad absara nee na ñaan gi ko yonent bi joxoon bi mu ko ñaanee dafa pare rek bët yi ubbi ku muy gis kon gumba gi riwaaya saxal na ni nettali saxal na ni moom dafa ñëw sàkku ci yonent bi yonent bi jàngal ko ak ñaan yaa rasulallahi allim nii duaa an adu bihi te xadis bu wér la jàngal ma ak ñaan goo xam ne dama ciy ñaan am na yeneen yoo xam ni bii nga xamante ni bii yëpp xadiisu Usmaan ibn Xunayf la moom bii moom mi ngi ci mi ngi ci sunanu Tirmidi <coughs> léegi déglu leen silmaxa si bi mu ñëwee dafa ñëw mu ni mu ni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñaanal ma yàlla ñaanal ma ñaanal ma yàlla mu may ma jàmm saafaral ma suma bët yi xam nga fee dañu ko jàngal ma ak ñaan fii nag dañu ko ñaanal ma yonent bi ni ko bu la neexee ma ñaanal la su la neexeet nga muñ te muñ gi moo gën in chita daawtu wa in chita sabarta fa huwa xayrul lak su la neexee ma ñaanal la su la neexee nga muñ ndaxte ku muñ ay ñaari bëtam yu yàlla jël mu muñ ko àjjana la ko ko yàlla di faye waaye teewul silmaxa ni ko ñaanal waaye yonent bi dama leen di laaj rek yéen borom xel yi nga xamante ni bii kenn forcé leen wu leen dara nekkul seen gannaaw di leen bëmax bëgg àdduna gi nekk ci ibaadu ak eh, ci wahaab yi maa ngi toj maa ngi tudd ibaadu yi waaye jubluuma leen de ibaadu yi jàmm ak salaam lañ seq ñoom ay julli lañ comme ñun ay jaambur lañ ña nga ci seenub liggéey wahaabi laay wax comme Mamadou Lamine Diop mii nga xam li ko yàlla jox ci làmmiñ bu ko joxoon cim xel wala sax mu mu mu guddaayu làmmiñam bi ak réyaay gi su ko ko yàlla defaloon bu ko yàlla seetloon fukki xaaj benn bi mu defal ko ko xel rek dana noppalu yonent bi nan lañ nan la nan lay xamee ni lii moo gën mu mbokk fa di def la yées kayfa yaxtaaru nabiyu sallallahu alayhi wa sallam alladi huwa adna ala alladi huwa xayr li gën mooy bañ a ñaan ca muñ mu mu loolu gën nag moom mu ba ko dem di ñaan moo tax doo boo dégloo siira bii am fii fi waa ji ne yonent bi ñaanal ma li li ko yonent bi sant ak ba ñëwee ni wax yonent bi jàngal ma ak ñaan wax ja jenn la moo tax jàngal ma ñaan gi mooy li wér yonent bi ni ko dugal nga dem jàpp soo jàppee ba noppi te da njàpp ma rafet nga ñaan ñaan gi aywa boo jàppee ba noppi xam nga ni jógal nga dem soo demee nanga jàpp ndax yonent bi daa topp ca moom ci bee ngi toog fi mu toog ak ñu ko fekke woon jataay bi waaja dem na dem na jàppi ba mu jàppee ba noppi déglu li wax déglu li wax dafa wax mu ni allahumma inni atawassalu inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammadin nabiyi rahma yaa muhammad di ko woo fu mu nekkul inni tawajjahtu bika ila rabbi fi xaajati hadihi li tuqda li allahuma fa shaffiahu fiya aywa nga xam ni ma nga toog fa yonent ba nekkut di ko woo waaye gis nga sa waay bi mu bëggee fen dëgg-dëgg ba ba ba jàngoroy fen ji jàpp ko at tawassulu nee na at taqarrub lay tekki at tawassul bii tekki jaarukaay moom taqarrub bi fecc bi tekki wut lu la jegele mbir mi la koy tekkee kadiban wa zuuran wa talbisan bi mu ñëwee ci lu mu bëgg a sikkalee ahlu tasawuf si dañuy giñ ci ñeneen ñu dut yàlla dañuy giñ ci lu yàlla ñun de du ñu weddi ni da dégg ku bokk ci ab tariqa giñ ci sëriñu tariqa bi muy njuumte rek nag muy lu mu wërta def rek nag muy loo xam ne sëriñ bi sant ko ko taaliba yi sant ñu ko ko moo ko def ci ci boppam xëy na tere gañ ko ko waroon tere nag manqué na ba tax mu jàpp ni lam def lu jaadu la waaye daganul te dafa xaraam kenn du giñ ci nit kenn du giñ ci mindaafoon kenn du giñ ci mindaafoon te nag doo dem ci benn téere boobu ci Tidiane Serif laam boobu El Hadj Malick Sy laam boobu Serigne Touba laam rahmatullahi alayhim jamian boo xam da caa bind ni mënees naa giñ ci kenn wala ñu daan giñ ci kenn yàlla rek le taalibe yi di def nag mi ngi mel ne benn malaat bu dugg ci hôpital waccu wala biiram daw ñu bëgg koo sikkale médecin yi médecin yi jotaguñ ci moom de te it wuñ ko pour wan na fi wàcc wala na sa biir daw te biir buy daw boobu ak wàcc boobu loolu nekk ci moom mu bëgg mu dañ moo ko indi hôpital moo tax kenn du dal ci kawam dañuy xam ni xaala wér-gu-yaramam moo toll nii dañ koy récupérer faj ko buñ ko fajee ba ba nopp ci moom dootu ko waccooti foofu ki nekk ci di di di taalibe di di tarbiya wu éggalagut xamagu ci lu bari erreur yi muy def nga bëgg ca àtte fañ koy tarbiya loolu soxor sa yàkkamti rek moo koy def waaye boo bëggee xam dëgg dëgg fa ñuy giñi ci ci ci kudut yàlla te tey ko dangay dem ca ibnu taymiya nga ànd ak moom mu yóbbu la ba ci téeréem bi mu tudd majmuul fatawa mu yóbbu la ci tome numéro vingt sept page numéro trois cent quarante neuf mu mu waxal la lu leer ci diin ni la nit ñi de dañoo werante ndax mënees naa giñ ci yonent beem déet waaye nag ñoom ñëpp juboo nañ ci daal mbindaa fon yu mag yi kenn du ci giñ moo xam aras la moo xam kursi la moo xam kaaba la moo xam malaaka moom boroom xam-xam yi juboo nañ ci yooyu kenn du ci giñ waaye nag werante nañ ba xam yonent bi mën nañ caa giñam déet mu ni nag ñi ëpp ci boroom xam-xam yi comme comme mel ne Malik ak Shafii ak Abu Hanifata ak Ahmed ci jenn waxam ci jenn waxam nee nañ yonent bi kenn du ci giñ te ku ci giñee nga du du du ni nga xam ne rek luñ giñ ci mbindaafam ah ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxte lam wax wér na ibnu taymiya yaay nettali mu ni laa taxlifu illa billah bu kenn giñ lu dut ci yàlla moo ne tamit kuy giñ na nga giñ ci yàlla te soo paree nga noppi te it nee na ibnu taymiya mooy nettali nee na sax na yonent bi nee ku giñee keneen ku dut yàlla yow bokkaale nga te lii mu wax lii mu wax wér na di laa taxlifu illa billah man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut man xalafa bi gayrillahi faqad ashraka ñetti nas yi benn bu ne day tere giñ ci min daa kon waaye nag tamit texte bu wér la nas bu wér la yonent bi ko wax teewul ibnu taymiya mu ni nag wa an ahmad riwayatan annahu yuxlafu binnabii sallallahu alayhi wa sallam xaasatan muy nag waaye ahmad nettali na ni mën nañoo giñ ci yonent bi te yemale ko ca boo demee ci majuma fekk ko ci am te kon fu ñuy giñee ci keneen ku dut yàlla ci kanamu fu ko ya fu ko yonent bi teree tere bu leer boo ko bëggee da ngay dem ci ci ci ci ci mboolo mboolum wahabi yu ni ñoom ñoo yor seen feebar bu leen wara a yóbbu safara waaye yëguñu ko yëgalu ko seen yëgaluñu ko seen yaram ña ngay dal dal ca kaw ñeneen di leen di leen waxal yeneen waaye vraiment man Lamine Diop naka jekk man daf maa mas a ërëm waaye rawatina tey léegi ba tey li muy wax naan teyit teyit bala may génn foofu ibnu taymiya moom ci boppam da daan guñ ci turam lu bari la amri boo demee ci téere bi te nag li metti rek mooy wahab yi du ñu jàng iqamatu dalili ala ibtaali tahlil boo ca demee ibnu taymiya yaa ko bind wala nga bind iq wala nga dem ci iqtifaau sirat al mustaqim li mu ti ashaabil jahim ba tey ibnu taymiya yaa ko wala al istiqamatu ñetti téere yi benn bu ci ne Ibnu Taymiya ko bind da caa giñ ci turu boppam ba doyal la amri lu mu wax ne la amri yàlla subhaanahu wa taala dana di giñ waaye moom bu dee giñ gannaaw lépp lépp ay mbindaa fanam la lu ko ca neex nag lay giñe lu ko neex lay giñe moom suñ borom subhaanahu wa taala waaye yow mi di jaam mayu loola yow a am ci foo war a yem ci giñ bu say giñ bari te boo dee giñ na doon dëgg te bul giñ ci kenn ku dut yàlla ibnu taymiya turi na ko mu ngi nii te nag wahabi bu ñëwoon weddi ko wax ni ibnu taymiya def na ko waaye dëganut wala xaraam na atte ko atte bu mu ci war a atte bu jógee comme ci teg ndegam ndegem ndegam def nga lu ko jar danañ mën nañ ñi ñu maandu lañ mais lii nga dégg ci sa tànk ba pare bëgg ñu deful dara bëgg leen a atte ci sa sa bànneexu bakkan loolu mooy jafe-jafe yi nar a am bi may mujj mooy dem ci nit ku faatu nga koy ñaan say soxla nee na moom loolu bokkaale bu bon la ñun de musuñu woon a xam ni nit dana dem ci ku faatu di ko ñaan ay soxla lu dul ci Ibnu Taymiya lañ ko xamee defuñu ko de man de mosuma dem ci ku faatu di ko ñaan samay soxla mais su ma toppoon Ibnu Taymiya dinaa ko def puisque nee na xuburul ambiya yi wa saalihin la fa am ci teraanga yu fa yàlla def ak yërmande ak worma fa mu yegg ci kawe ñu baree bari umpule nañ ko ci yéen mu ni naka noonu la fa yàlla yàlla def nga mën a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bàmmeelam nga ñaan ko sa soxla wala nga dem ci keneen ku moom nga fekk ko ca bàmmeelam nga ñaan ko say soxla yàlla faj ko ne loolu daa am amati am na ba tàyyi am soxla dem ci ku faatu ci armeelam nga ñaan ko soxla sa soxla sa yàlla nangu ko faj ko nee na imtamie nee na am na amati na soo demee ci iqtidaaw siraatul mustaqim fekk ko ci mu ni léegi léegi nag wax dëgg yàlla lu mel nii di lu xaraam di sirk di zulmun azim sa sëriñ def ko nga nga ko ca di ko def ndaxte sukutul aalimi iqraarun te waa jii moom moom ku ko ku yeb ba ko mu bokk ci ulama yi ndax moom na ci boppam par force force la waaye léegi li mu bokk ci par force mu bokk ci ba pare nag bëgg ñëw ah di léeg ji ñoo xam ni kenn xamu ko ala kulli xaal man fii lay tëje fii lay tëje li ma doon wax dama koy tënkaat nag ngeen dégg juróom-ñaari point laa jël ci li waa ji wax lu bëree bari nag la wax waaye wax dëgg yàlla awa kullama tanna zubaabu tarattuhu inna zubaaba idan alayya karimu munuma fu weñ wi mbululu la rek ma bàyyi la ma doon def topp di ko dàq moo tax weñ wi tey dama koy bàyyi gannaaw bu ma jëlee nag juróom-ñaari point benn ba mooy ab jaam am na droit tànn ci ñaan yi ñaan gépp gu ko neex mu ñaan ko yàlla benn ñaan yi bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci ku faatu yu baree bari la moo tax nit ki am na droit tànn ca bu ko neex mu ñaan ci qissatu fatima bintu asad ibnu hisham di yaayu saydna ali ibnu abi talibin su ñii nee wérul it ñeneen nee nañ wér na qul huwallahu ahad day tolloog sulusul qur'an loolu yonent bi ko wax kon ñett qul huwallahu ahad day tolloog kaamil loolu la wax ji tekki at tawassulu bu fekkente ni jëfi nit ki mbindaa fon la nañ nangu mbindaa fan la mu beru nee mën na caa tawassul te mbindaa fon la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbindaa la te moo gën a tedd sa jëf jooju yaag moom kon suñ mënee tawassul ci sa jëf ndax lim nekk mbindaa fan wala boog te fekk mbindaa fan la buñ mënee def tawassul ci jëf te fekk mbindaa fan la kon war nañoo mën a def tawassul ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax daje nañ ci mbindaa nga te yonent ba féetu ko sa kaw bu juróom benn mooy al giñ ci kudut yàlla ñun dañoo gëm ni sirk la waaye ibnu taymiya nee na nee na ahmed nee na mën naa nekk dem cib armeel fekk fa ko ñu rob nga koy ñaan say soxla ñun de duñu ko def waaye ibnu taymiya nee na mënees na koo def te ku ko def sa aajo faju léegi kii nag di doomi ibnu taymiya joo xamante ni bii mat wu rëy la ko ibnu taymiya matu moom dégg li muy ni mu dalee ci kaw lii dama yaakaar ni dafa bëgg dal ci kaw baayam te am lu muy yaras yaras bëgg ko ji ñenn pour mën a dalee dal ca seen kaw pour baay bi yëgaale ci dara loo loo loo laa jàpp su ko defee Euh, bajantugu ak golo wal wal xirdu al kuruudu kuruudu al wal kilaabu kilaabu xaj xaj rek la mën a doon xaj gu nekk ci wahaab bi ba tax mu defee ne Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif wala Cheikh Tidiane Gaye te seen ñaari tur yi ni ñu bokkee noonu la seen jikko yi bokke Cheikh Tidiane Gaye bu jàppeente ni gisatuñ ko tax benn wahaab bi bëgg a fecc làmmiñam ci kawam naa ni ko ala risli ka defal ndànk sawi te tëri ngay xala def waaye Cheikh Tidiane doo mën a egg ca moom Cheikh Tidiane doo mën a egg moom ndaxte ñiy dox sa digganteek moom ñi ngi nii toog te duñ la baal maître duñ la may dara te bu fekkente ne danga ngaa bëgg a topp li waxoon lépp danga sonn te te te te li la yëgal ni da sonn du doon lu la nit di wax du doon lu la nit di wax yaa koy dabal sa bopp xam naa maanaam waxtaan yi nga mas a def jële ci hazima ak li muy bari bari bu ci mel ne bu tey bii moom yaakaar naa ni mosoo koo def puisque bi nga waxee ba eggal yëg nga ni waxoo fi dara wax ba àggal da nga yëg buñ buñ la buñ la ne woon kaay naq du sa bopp comme ni jàngalekat yi def bu benn waay joxee leçon ba eggal ñu ne ko léegi nag dañ ñun dañ la doon xool pour corriger li ngay def waaye nag dañ la bëgg a dëkk a jox kàddu gi nga nga waxal ñu yow boo doon naqdu sa bopp fan ak fan nga jàpp ni na ko bëggoon a defe defe woo ko ni wala juum nga ci wala fàtte nga ci bu ñu la joxoon kàddu gi ñu leen naqarul sa bopp li ngi ñi wax mooy mooy mooy évaser leen bande bi li dootu ma ko waxati mukk puisque kenn da ko dul gëm wax joo xam ne yow mi ko wax gëmoo ko te it da ngay fiir ahadis yi ñuy daanu di fiir asaar yi ñuy daanu pour lan li mu jarra di man tey maa ngi war a weddi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Gaye te nag yaakaar naa benn yoon nga tudd turam yi ci des yëpp waa ji ngay wax waaw waa waa ji am na tur tuddal waaye fi ne nii ku la fekkoon nga ni wew toog di wax ci Cheikh ngay wahabi bu la fekk day dar gémmiñam tàmmu leen ko ci seen baay docteur Lo bu déggee ni wax ngi Cheikh Tidiane ngay danaan kii daa li muy def Cheikh Tidiane kenn la woon fii tojoon lu bonu seeni sëriñ mu faatu ngeen defe ni jeex na waaye bàyyi na fii junni fi ne nii menn Cheikh Tidiane lañ fi amoon waaye fi waqtil xaal yi am nañ ci lu ëpp junni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Gaye am nañ ci lu ëpp ay junni te day yokk te nag danañ continuer ak yéen xeex bi xatta la takuna fitnatun wa yakuna diinu lillah bu la neexee nii lay deme su la naqaree nii lay demee salaam ala man ittaba al huda jul am maa yéen jullit moom asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh